واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما tey tey bésub sant la de dañoo ñëwoon ci bésu maam Seydina Limaamu rek at mu jot dañ koy teewee nag ay Baay Faal lañ maam Seera Faal lañ waaye nag ñoom ñi ay borom baax lañ. kontaan naa ci li nga wax de <laughs> kontaan naa trop. danoo amul ñenn ñu dul ñoom moo tax màggal ak gàmm yëpp nii laa koy jàppoo bu maam El Hadj Malick ooyee laay demee dam jàpp ci liggéey bi waaye seen limaam moom ak seen Issa am na lu ñu def ci man loo xamante nii du ko nettali doomu aadama ma doon ma fonk bés bi loolu nag at mu jënd damay ànd ak sama soxna ñëw ñëw teewe bés bi. li mooy yëf yi Baye Fall. liggéeyal Serigne Touba rek moo ma tax a jug nag waaye nag man ñoom ñii dama leen fonk lool nag. yi nga def nii yaa ngi liggéeyal Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa woo dafa wax ñëpp nañu bokk nekk benn. waaw loolu day teel na ma lool sax xaw ko xamul Seydina Issa. waaw man xam naa ko bu baax. waaye nag Sénégal na ñëpp booloo rek bëgg Seydina Issa laay rek. am na mbir booy nëbb de. barke Seydina Mouhamed. nañ bàyyi noonu rek. ziar bu wér a wér a wér. lay delloo ziar bu baax sëriñ Mbacke Diop la serviteur de Khadimou Rassoul. serviteur. Mhm. sëñ Mbacke tey bés bi koy yëgee ak lu waral teew bi tamit tey moment yi nañ ko tey mu nekkoon moment bu doy waar yor-yor bi lan nga ciy wax. sarit lisaani nawet janaani saafi amaani wasit baraayi barke borom Touba. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen waa Sénico di amaan mbégte bu baax. xam nga bis bi moom day bis boo xamante ni lislaam rek moo ko tax a jóg te buñ dee ñooñi lislaam fépp foo xamante ni dañ fay yëkkati lislaam rafet nañu teew fa loolu rek tey it eh, fenn fu nekk boo dee xool dafa am dafa am maanaam ab delluwaay wala dafa am kër wala dafa am néeg ci biir lislaam ñun boo ñu dee xool taalibey Touba lañ waaye Serigne Touba dafa ñoo dégal ni ñu na ngeen jëflante ak nit ñi ni ngeen bëgg nit ñi di ko jëflante ak yéen lépp loo xam ne bugg leen ku leen ko def bu leen ko def kenn te fii tey boo génne woon laay ni tey ber leen rek maanaam ñi nga xam ne ñoo jokk fii bu buñ doon ñett tey ñaar ñëpp bu màggal Tuubaa jotee dañu màggali kon jar nañ ñoom day day yell ci ñun ñoom bu ñu wootee ñu ñëw wuy si leen te ki nga xamante ne bu ñu wootee mu wuy si moom wàcc na ki woote moo ci des kon ñun ñëw nañ en tant que jullit en tant que mbokk sénégalais en tant que mbokk dëkkandoo ñëw teew fi ngir lan ngir ñaanal ki nga xamante ni moo ta moo tàmbaloon liggéey bi suñu borom dolli ko ay leer yokk màqaamaam njaboot gi mu fi bàyyi tañu wutu ko tamit ñu di leen di ñaanal tamit gudd fan ak wér ba ndoona li nga xam ne bàyyi nañu sàmm gi koy sàmm dara bañ koo ruur te jamono ju nekk muy gën a jëm ca kanam. est que xam nga ne euh, li nga def nii am na benn sama mbokk Baye Fall bi ma jël léegi moom itamit mu teew yëg-yëg bi mu am ak itamit ni mu féetee ci naa Issa ak naa Limam moo tax mu teew tey lii nii am na loo xam ni mën na ko wane fii ci biir réew mi diggante li nga xam moom la tuddee kër diine yi man dama naan diina gi benn la mais kër diina yi ñuy wax est-ce que lii tey nekkul ne diine gi yëpp benn la. waaw xam nga lislaam moom amul amul amul ñaari tur benn la kër tarixa yi. waaw xam nga xam nga mooy li ma la xam nga tarixa yi hmm. maam suñu borom bu namee mbir faaw mu wutal ko sabab. xam nga fi mu toll dama dama dama lay wax ne la xam nga dëkk bi kenn ku ne ak sa kër ci biir kër kenn ku ne ak sa néeg noonu rek la demee waaye du li ñu xaajale lii wala lii parce que ñun boo gisee suñu bunt ci lislaam muy Serigne Touba boo gisee bi mu bi mu kii yoonu murit waxul tarix waxul tarix te tuddewu ko boppam ku jëm ci yàlla rek xam nañ murit laa ci yàlla jóge ci yàlla la ñuy dellu te bi mu jógee ci tukkib géej gi tamit bu ko tubaab bi ne wax ñu ki nga xamante ni bokkul ci sa ñooñ ngir ñu faagaagagul daf bàyyi leen ba waxtu julli jot bu waxtu julli jotee jàkk yi nodd ñëpp dellu di jëm jàkk ya mu leen ku ngeen gis muy dem rek sama njaboot la bokk kon moom dafa njabootu woon lépp la mu waxoon ca départ ba lil Moustapha na waytumaa yu jaddidu sunnatuwul haraawi inni ahmadu damaa ñëw ngir yeesal sunna Seydina Muhammad kon képp koo xam ne yaa ngi ci biir tool bi di bay rek wala képp koo xam yëkkatiku lislaam ñor na la jaadu na foo woote rek ñun ñun ñu wuy si la. bëgg nañ la bu a baax. alhamdulilah jërëjëf sant nañ bu أكثر الإنس والجن رسول الله إليكم